Sénégal wa Aduna. salam alaikum wa kermassar salam alaikum chers téléspectateurs FM ñi ngi nuyu képp reconnaître à travers qui qui sont émission parlons sportif et fitness donc c'est toujours votre coach ou bien votre moniteur coach cher donc ñëwaat encore une fois ci suma émission pour accompagner leen mais aussi pour waxtaan ak yéen parce nag phase waxtaan dafa am comme que ci phase waxtaan la ñu nekk nañu nekk ci sunuy waxtaan kii di waxtaan di parlons boo xamante nii vraiment on tire l'essentiel leneen li ci des ñu jël ko tegee ko à côté donc ci je pense que ñu ci gën di avancer ñu nuyu donc ci bépp tarixa sunu kilifa aada ci donc euh, y compris sunu njiit yi nga xamante ñoo ci politique yi ci département bi ci commune voilà euh, ci un peu partout des ziara bu baax a baax donc sunu téléspectateurs yi xam naa ni ñu ngi leen di jéggalu ci xaw a gëj a def émission yi parce que nag comme on dit il faut se mettre derrière ou bien il faut ñuy làqatu pour gi indi leen loo xamante ni suñu ko génnewee vraiment dina leen amal njariñ ci biir ak ci biti moo tax duñu bëgg di ñëw rek di ko def comme nee na ni te yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ni actuellement ñu ngi ci fin d'année te fay nag ci wàllu tubaab je pense bien am na lu muy undu mooy ci biir at bi lépp loo ci defoon nga ñëw def rekam xool lan moo ci baax xool nan lañ ko war a améliorer xool nan lañ ko war a jonjante xool lan lañ ci war a dolli xool lan lañ ci war a wàññi donc ñu nit il ñu dugg suñu ruq def rëdd donc pour préparer wu xamaat fan lañu ñu war a jëm suba xamaat fan lañu ñu war a jëm ci 2024 bi ici avec euh, chaîne TFM? donc avec vous plus particulièrement pour au moins ngeen mën a gis mais aussi ngeen mën a dégg ngeen mën a comprendre ci domaine sport mais plus loin dans la domaine activité fitness donc nan lay évoluer nan lañ koy nan lañ koy gisee nan lay demee ci dëkk bi parce qu'on sent bien une belle manque d'information euh, peut-être manque d'information le manque de voilà curiosité là par rapport à certains parce que nit ñi duñu wut information avec Nitemo je pense bien tout vous sera donné que ce soit ak ñun wala ñeneen ñi nga xamante ni ñoom la ñuy seqal euh, télé bi te ñuy di def on salue de passage qu'est koo xamante ni yaa ngi ci nité di émission donc. Euh, monsieur Traoré ñu ngi koy nuyu donc parlons euh, éducation la nekk ci ci ci fii ci nite donc avec ses jours ainsi de suite ainsi de suite ak ñeneen ñi nga xamante ni ñi ngi fii di yëngatu ci émission yi je pense bien ñun on va répondre juste rek ci wàllu sport mais nag ci volet boo xamante ni dafay xaw a gën a voilà spécial parce que ñu ci bari spécialité bi mooy ñu ci bari suñu taxawee de loin dañ koy gis yaakaar ne ñii dañuy fecc ñu ci bari suñu koy gis dañ naan ñii lan la ñuy def ça demande la question donc ñu ci bari suñ ko gisee dañuy taxaw pour xool lan la ñii fan lañ jëm wala lan la ñuy def euh, ñu ci bari suñu déggee sax seen seen seen euh, seen raisonnement mooy lan moo xew fee xanaa fee espoir a fa am kon ce qui veut dire que d'accord nit ñi xam nañ ni sport la mais ban façon sport la donc do sport bi nga xamanteni mom ngay def ci football bi dedet do sport bi nga xamanteni mom ngay def ci handball bi non non do sport bi nga xamanteni mom ngay def ci lutte bi non non do sport bi nga xamanteni mom ngay def ci basket bi dedet do sport bi nga xamanteni mom ngay def pour mettre en forme non non mais c'est le c'est l'ensemble de tous ces activités là képp ku ciy def daal da ngay soxla ñëw ci wàllu def activité euh, fitness ce qui veut dire que képp ku ci nekk da soxla loolu léegi nag foofu dafa am fenn fu ñu koy defee foo spécial donc dinañ ci ñëw spécialité boobu moom mooy tax nga mun a am benn résultat bu spécial par rapport ak yeneen yi voilà donc foofu doo limité wu fii rek laa yem surtout su dee am nga moniteur boo xam te daf lay accompagner selon sa besoin selon sa sa objectif moom mu jaare ci loolu pour mun la xam nal la lay accompagner ce qui veut dire que yooyu la ñuy bëgg nit ñi di ko dégg d'abord suñu paree nag ñu def jëf parce que nag kàddu kese te amul jëf du am sens te nee nañ euh, yéene jëf a koy am na nu ko olof di waxee su dee juum naa ñu xam mais am na nu ko olof bi waxee nga xamante ni dafay dafay dafay ëmb lépp voilà donc yooyu nag je pense bien euh, su dee dafay am rek euh, il faut ñu dem ci avec connaissance mais on sent et on voit une manque de connaissance boo xamante ni dafay yëngatu ci wàllu sport bi nit ñi di ko def parce que da ngay dem hôpital ñu ne dama def e sport nga am problème mu ndigg wala nga am problème wala nga ñu dama def sport mais sport donc c'est c'est très important que nous poser ko suñu pour xam nan lay demee ak nan lañ ci je pense bien approche yu demee euh, chaque jour ñuy proposer ñuy demander ñi ñuy mën xam nan lañ koy doxee nan lañ mais nan lañ koy parce que nga naan naam da Sénégal lañ nekk léeg-léeg copie coller bi daf cee bari mais looy copier di ko coller le minimum mooy nga xam sax au moins li ngay copier lan la mais paresse bi dafay dugg te paresse bi li tax muy dugg moom mooy on n'a pas l'esprit donc combatif on n'a pas l'esprit donc engagé on n'a pas l'esprit donc d'aller creuser ou bien d'aller euh, chercher des informations avant de faire ou bien avant de pratiquer quelque chose donc yooyu nag je pense bien su dee dafay gerte nit ñi mais euh, ça devient catastrophe donc beneen bi nga xamante ni moom mooy sonal nit ñi ba suñu waree def dara duñ ko dem defi ji mais xamuñu ban tranche d'âge ñoo soxla dem def ji sport xamuñu ban tranche d'âge moo soxla dem def style sport bii xamuñu ban tranche d'âge moo soxla dem eh, def style sport bee nag ainsi de suite ainsi de suite parce que y a beaucoup d'approches ci wàllu sport donc on peut en citer euh, sport pour les adultes suñu ko waxé dina yaatu mun nañoo wax sport pour les professionnels ñi nga xamanteni dañuy yëngatu ci walu voilà et sport pour les amateurs ñi nga xamanteni dañuy ñëw pour def benn remise en forme wala maintien de forme voilà ce qui veut dire que et euh, tant d'autres en passe parce qu'il y a d'autres personnes yoo xamante ni dañuy dugg ci sport remise en forme boobu wala mise en forme pour permettre soit c'est objectif nag foofu lay de renier donc ce qui veut dire que nul n'est exclu mais sport aussi pour les handicapés je euh, baal ñu mais les milliards ni ils sont exclus euh, voilà qui salle d'espoir sport et tout non non non pas plus tard que hier m'a rencontré ben personne pour me présenter présenté corps wax qui ko c'est un moniteur sportif donc ma delloowaat ko salutation yi il était accompagné mais qui m'ont accompagné il avait ses béquilles mais euh, ce qui m'a premièrement euh, en premier lieu li ma est-ce que mon naa ñëw def espoir man ko mais pourquoi pas espoir yi def c'est pour nit ñi ñoo def vous êtes humain léegi nag souci de moi suñu fa ñëwee ñoom déjà am nañ seen bopp lan lañ fa war def donc su dee coach bi wala moniteur bi fa nekk amul approche lan la ko war a defaral ça va poser problème et toujours il va se dire que ou bien elle va se dire que man bokkuma ci tranche bi mais au nom de quoi moo tax il le faut au moins di accompagner ñoom it ñu xam ni ci lañ bokk donc ñu war di ñëw di def seeni programme di def seeni approche donc yooyu c'était juste pour en manière ramassée wax leen ne leen sport bi yaatu na c'est au-delà de ñëw dem dawi yi c' est au delà de ñëw dem jël sa bal football c' est au delà de c' est au delà de ñëw yore sa basket def basket c' est au delà de leneen ak leneen donc lutteurs yi chaque jour ñu wane ko y' a récemment le roi des arènes Modou qui l'a montré avec approche boobu mu doon def ci lutte bi en en état même euh, bi muy bi muy bi muy bëree mel ni ku yorul ay xar fa xuufa noonu ñu koy waxee parce que y a ni loolu rek mooy tax nit ki mais il a bien montré qu'il faut être athlète d'abord mais athlète boobu fan la donc euh, ainsi de suite ainsi de suite je pense bien yu demee noonu yëpp mun wax ni donc ku def dara daal di nga am dara ku deful dara nag doo am dara moo sport bi dafa complexe il faut toujours avoir l'habitude de demander avant de, vous exercer. Il faut toujours avoir l'habitude de, de s'informer avant de pratiquer. Voilà. Parce que a mom moy tax nga mëna am ben clairvoyance ci li ngay def moy tax nga avancer à 100% ou bien à 115%. Mais vraiment on ne doit pas être au-dessous de 52% parce que ceux des dañuy def dara té amo ci information nga au pour def ko vous êtes au-dessus de 50% parce que sont des pratiques physiques rek ngay à euh, théorie donc ce qui veut dire que ça ne passe pas toujours y a benn blocage dans la nga naan la da fay nekk euh, suñu defee tuuti rétro ci suñuy émission yi je pense bien y ci gis euh, pas mal d'approches pour maintenir une colonne accompagnée ko accompagner avec une chronologie donc la première émission on l'avait fait en vers mai mai 2023 donc les gens qui accompagnent. accompagner ces premières émissions là c'était juste appeler Nous avons été responsables du euh, département de Massar parce que voilà c'est notre fief donc nous nga été balaa ngay ce qui veut dire que nous avons invité Alain monsieur président de la commission sportive le département de Massar

Euh, diversifier un peu les approches dans la domaine randonnée ci domaine ci domaine sédentarité yi nga xamante la nit ñi di en permanence avec ses sous-thèmes donc ci domaine nutrition yi nga xamante ni la souvent avec ses sous-thèmes ci domaine euh, sport en salle avec ses sous-thèmes ce qui veut dire que maintenant il faut qu'on passe aux pratiques mon avec coach Char, euh, parlons esport. on va tirer qui niveau pratiquons le l'espoir Parce qu'on peut plus euh, se tenir à parler uniquement. Il faut ñuy jëf ngeen di gis ngeen xam ni euh, le wax jiituwul wax fay mujj kon soo il wax a naa après peut-être wax ji mujjé du no du gudd mais jëf ji moo ci am solo. motax suñu waxe ba ngeen dégg ñu jëf ngeen gis yaakaar naa ne lay doo am su dee fële laal nañ ko su dee fii laal nañ ko mais c'est juste pour vous inspirer et vous faire comprendre que ni activité sport soo koy def da koy xam d'abord balaa nga koy pratiquer moo tax parlons sport donc on remercie euh, tout ñi nga xamante ni ñoo nekk ci eh, staffu nité di ñu accompagner depuis bi ñu fi nekkee ba léegi ñu accompagner ñun Euh, di accompagner ñi nga xamante ni mooy suñuy invité yi fi daan ñëw donc ñu lim ci monsieur Aline Mbaye exemple passe pour les autres nga xamante ni moom suñ ko limee mën naa yóbbaale ñeneen ñi ñu fi indi ñëpp donc euh, les coachs yi nga xamante aussi invité nañ leen des coachs yi nga xamante ni amoon nañ yéene pour ñëw mënuñu woon ñëw ci at bi donc euh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ñëpp. di leen parce que yene rek mo am solo en première phase yene ni ci tegu nag di do ko tegu nit ki di nga yéene dara pour ñëw def ko mais yalla du ko sottal mais après ci ginnaw lay am benen suivi comme ce qui veut dire que ñoo ñu ngi leen di invité di leen wax nañu préparer waat parce que ñi ngi ñëwaat donc 2024 ce sera autrement avec Nité parlons sport tiré fitness je pense que ce sera une autre approche donc di ngeen ko gis di ngeen ko gis avec d'autres affiches avec d'autres approches. Donc on serait plus en voilà, la course. On serait accompagné serviette donc on est sur le terrain donc euh, attendez-nous donc avec force avec unité, parce qu'il euh, faut qu'on parvienne à accompagner les dans la domaine de Si olof

donc parce que nak lolu la ñu fi am ginnaaw ñaan gi nag seen loxo daf ci dugg moy pratiquer le sport dans les salles donc dans les avec des connaisseurs donc pour gën am ci benn résultat amul leneen leneen lu ci ñëwaat nak après bonus lay doon kon euh, ñi ngi remercier sunu cameraman ci accompagnement yi ñuy defaral di remercier régie di remercier le président Eh, di groupe Nité FM ici à ya kermassa di remercier kep ko xamanteni yaangi don deg suñu cadeau wala yaangi don deg suñu gis suñu image wala yaangi don doon yàpp xaar ñu def émission nga am lo ci jël wala nga am lo ci suggéré ñu eh? don commentaire ci souf tout le monde ñu leen di jaar di leen wax ni 2023 ce sera autrement préparez vos soucis préparez vos sucettes préparez vos tenues de sport. On va venir et on vous invitera à venir ensemble sur def nos pratique sportive fait petit département comme ça et après au-delà Inch'Allah. merci à vous c'était coach cher si votre émission Parlons sport tire fitness fin d'année là comme on vous dit joyeux Noël et on vous dit bonne année 2024 voilà a y que le def plus lu mu saawan baawaan ci département bi saawan ci commune yi saawan ci àdduna bi yëpp merci à vous on se dit à